ci jàmm ci Sénégal ni mu ko mos di wàccee ba nga xam ne lépp lu ñu ragal rek duñ ko gis mu ngi jëm ci ay jongante yoo xam ne yi euh, xamaguñ nu mu nar mel mais yàlla na yàlla def rek mu mel nii fi passé yëpp nga xam ne jàmm lay mujj alors ñu nit tànn ki nga xam ne ma leen doy ñu xëyee ñëpp jóg liggéey loolu la ñu ñaan yàlla euh, ñu ñaan nag ñëpp nag teewlu ne euh, ñu dellu ci yàlla daal ba nga xam ne bi affaire par parlo ak topp àddina wala bëgg dara ji du pousser kenn ba mu def loo xam ne lii dafay indi loraange ci réew mi parce que loraange bu xasee ba ñëw wala fitna bu xasee ba ñëw li ko indi du ko dindi gis nañu xew ci dëkk yi ñuy wër yëpp Mali Burkina Niger alhamdulilah loolu mosu fi da su fi am parce que waa Sénégal dañoo fonk l'islam dañoo fonk alxuraan dañoo fonk nit yàlla yi moo tax yàlla suturaal leen ba loolu dal leen ñii naan nag loolu ñoo xam ne moo ñu may lii nañ ci sax bu ñu ci dara génne